Thank you. mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir limametti.com di leen jaajëfal comme à chaque fois dañuy ñëw ak yéen ci actualité di wax ci humoriste bi nga xam ne moom mooy Kouthia déggu ngeen déggoon ngeen fi ni moom dafa am feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus ba mujjee fële nga xam ne moom mooy réanimation feebar bi métti woon na torop ci moom ba ñëpp doon ko tiital benn information nag bu ñu daal di jot ci moom jógee ci ñële nga xam ne moom mooy waa tas xibaar ki nga xam ne moom mooy Kouthia état de santé mi ngi jëm kanam maanaam li nga xam ne ni feebar bi méttiwee woon ci côté mi ngi wàññeeku bu baax baax a baax a baax ba retrouver na li nga xam ne moom mooy ay esprit daal dina ñëw en contact ak ñi nga xam ne ni nga xam ni moom mooy coronavirus a dafa gaaw a wàlle li nag nekkoon information boo xam ne bu neex la jëm jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy Kouthia di humoriste bi nga xam ne jamono ji dafa daal infecté ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus ñu koy ñaanal yàlla delloo ko ci ak ci activité mu daal di jógee ci feebar bi continue leen di topp limametti.com ngir am information la information yi limametti.com la cloche notification bu leen ko fàtte moo leen di mën a permettre ngeen mën a foo leen mënti toll ñu leen di jox rendez